waaw tey dama ñëwoon ci ay ci Saint-Louis ci Ndar pour euh, présider CRD bi nga xam madame la gouverneur moo ñu ko yombalal jàppale ñu pour que l'ensemble des acteurs donc du du sport mais également ñi nga xam ne ñooy membre CRD bi yëpp ñëw jàppale ñu ci événement majeur bi nga xam Saint-Louis moo am moom la am honneur abrité mooy grand prix bu chef de l'État son excellence Macky Sall ci mën dans le domaine de la lutte lutte traditionnelle chaque année donc xam nga ministère bi day organiser drapeau bi nga xam président de la république. cette année Saint-Louis a am honneur abrité mën événement majeur boobu muy événement yi nga xam ne yi mag la ci ministère bi. avons nag ñu ñëwoon ànd koog CNG bi ak madame le gouverneur pour waxtaan ci modalité pratique yi nan lañ ko organiser donc nous avons waxtaan nañ ci ñun ñëpp te point yi nga savez, c'est yëpp mën naa ni CNG bi soulevé woon mën ni l'essentiel des points mën que ni service bi teewoon jël nañ ko en charge. C'est ki ci Moi, nag la municipalité de Saint-Louis donc euh, mairie Saint-Louis mom, a point yi nga logistique l'essentiel des points jël sont en charge et c'est l'occasion pour de nous remercier mais également féliciter le maire de Saint-Louis donc notre collègue monsieur le maire Mansour Faye sans ko ci générosité et disponibilité nous son représentant euh, l'adjoint au maire chargé des sports qui est un sportif donc moi aussi teewal na nous jëmmal mais également les li nga euh, préoccupation la woon bu CNG bi mëna ni jël nako en charge donc nous remercier également l'ensemble des chefs de service yi nga xamni tay monsieur madame le gouverneur woon na leen ñoom ñëpp nañu ay mëna ni ay engagement pour que l'essentiel des points yi nga xamni ni soulevé soulevé nañ ko fi ñu mëna ko jël en charge donc défé na ni dal bi ñu réunion bi tay japp nañu ni inshallah rabbi li nga xamni moy euh mëna ni euh mo jëm ci euh, drapeau bi mën naa disposition yep, mën naa ni macha allah nañ ko te am nañu yaakaar ni dinañ dem ci événement bi donc ci jàmm mais également mu nek un événement réussi mais un événement exceptionnel. benen bi ci dess moy cette année dañu dugal innovation moy dañu dañu am lu yees luñ ci dugal liñ ci dugal lu yees nag moy li nga xamni mo jëm ci dugal petite catégorie moy xalé yi dugal len ci mën drapeau chef de l'État te loolu dañ ko def en perspective moy jëm ci Jeux olympiques 2026 nous savons que le Sénégal dafa bénéficier la confiance de confiance communauté internationale pour organiser les Jeux olympiques en 2026 que Sénégal a un double défi défi d'organisation, organisation vraiment mu organisation mondial mais également défi sportif défi sportif de faire en sorte que le Sénégal les athlètes qui xam dinañ performant participer dignement donc ci compétition et également défendre le Sénégal de ci mbiru lutte mën naa ni ci mbiru làmb CNG bi introduire na cette année li ñu wax ñoom euh, horizon 2026 mooy teg ay xale yoo xam ñu ngi leen di tàggat di leen préparer pour que en 2026 ñu mën a représenter dignement le Sénégal ci compétition yi jëm ci Jeux olympiques ci domaine de la lutte loolu nag muy innovation bu majeure ñu ciy féliciter président CNG bi mais également di ci remercier président CRG de lutte ma nga xam ni moom tamit jël na matukaay yëpp pour que événement bi nekk un événement réussi donc nous koy félicité moom ak waa comité d'organisation bi yëpp ñim ko andal di leen wax ni également ministère bi inshallah allahu rabbi dina ci japp ndax wax naa ko événement au président de la république la. lool nak Donc, en tout, cas yi ci war yëpp war dañ ko ci def pour mu nek un événement réussi mais également un événement exceptionnel benen bi ci dess moy amna sen seen benn mbokk sànq bu wax suñu jógee ci li nan lañu mëna def ba développer la lutte ci région bi xam nga Saint-Louis deuk làmb le gaa mais làmb melul melul fi comme ni mel ci fatigue wala ni mel ci yenn deuk yi donc ba tax na kon liñu wara def après qui bi nu drapeau du chef de l'État nan lañu def ba mën organiser événement majeur ci ñett département yépp pour mën naa ni ji gën fi mën soxaliku gëna gën développer et pour cela donc motax j'ai beaucoup apprécié donc intervention ou Boy Guet ci limu wax pour ñu jàppale promoteur yi ndaw yi nga xamni ñu ngi fi bëgg organiser mais amuñu doolé c'est l'occasion pour nous de lancer appel Nous nga que yor un peu de moyens, mais également sponsors les entreprises yi dans ci région nous pour ñu gëna promoteurs mais également le CRG de lutte le comité régional pour que lamb ji développer nous développé ñuy def ay tournois ci département de Podor département de Tagana département de Saint-Louis qui est tax pratique bi

ñaar fukk ak juróom-benni stade yu bees ci département yi nga xam amuñu gën stade ci loolu nag bi ñu bi ñu projet bi dañu dugal mën naa ne construction euh, service départemental des sports ci biir stade yu bees donc côté boobu moom mën naa ni incha rabbi 26 département yi nga xam ni amaguñu euh, mën naa ne stade dinañ am chance am occasion wu service départemental des sports ñu dugal ko ci biir stade bi ndax yàlla dogal na man bi ma Qatar rencontrer le ministre qatari des sports daf ma ministère am dafa dafa dafa ne ci ben stade kon amna service yu bari yo xamni mën nañ ko duggal ci biir stade benen bi moy benen programme buñu am moy réhabilité donc service euh, yi nga xamni les services départementaux ak régionaux yi ne ci biir région yi ndax yenn saa comme niñ ko waxé dañuy nekk dans des situations quand même yo xamni xawa difficile motax dinañ xol ak les gouverneurs et les préfets ñu xol nan lañuy ñuy pour ñu gudd wutal ñu ay locaux yo xamni dina gën vraiment adéquat pour nous mettre les services départementaux et régionaux ndax avons sport bi fi mu toll mën ni fi Sénégal toll ci ay performances maintenant services yi nga xam ni nous dans de meilleures conditions de travail et là, man bindoon naa ci lettre premier ministre monsieur le premier ministre pour demander ko pour mu appeler, ñu ñu équiper donc suñu service départementaux yi doté leen de véhicules ak logistique bu nous ñu mën def seen de manière convenable ndax Sénégal nous avons toll ci performance ci sport service yi nga xam ne ñoo ko ŋànk ci département ak région yi war nañ nekk dans de meilleures conditions loolu daal moo doon yi ñuy sant ñëpp di gërëm